ahousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyób jullit ak mbokkum jullitam di leen nuyu nuyób taalibe ak mbokkum taalibeem nuyóo bi ak ziyaar yi ñu ngi ci jiital sëriñ Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fii te yàlla wéral ko ñaanal suñu borom dooli ko kàttan ba yéeneem ci liggéey sëñ Tuubaa lépp mën koo matale di ko ñaanal sëñ Abbas mi borom mi xalifa borom daru Muxti di ko ñaanal alhaji maam tiarno Mbakke mi xalifa sëñ Seexu Balla wa di ko ñaanal sun buntu sëñ Tuubaa di sëriñ Modou makhtar ñaanal yalla yagal ko fi lool te wéral ko di siyaare mbokki tal bi nga xamni ni ñoo ci bes bi di jaajeufal baax Modou Diop eh, ak mbollem Murid Info mi mu ma sha allah turu wi rek da taw feexe lool Murid Info ko ñi ñaan sun borom yok ko ni yoonu Murid yokko te yàlla dëgëral ko kàttanal ko baax ndax daa mel ni bu doon ab course damay wax ni jël na numéro un hmm. ba xasee tudd murit rek laa moon taw feex hmm. ndax murit moom ca kaw rek ca kanam incha allah hmm. ah, kon yàlla na yàlla yokk baax a baax eh, ñi ngi am mbégte ci teew ci bis bi nga xam ni amul benn bis bu moom mooy sun bisub sëriñ di bisub sëriñ Modou Makhtar ni ko waxee rek ci présentation bi na solo lool kon leer na nañ ñi ñiy topp jataay bi xam ni loolu rek mooy sawu bis bi eh, nun nag danoo amut kurul sëñ Modou Maxtaar sunu yëngu sunu dal sunu lépp sëñ Modou Maxtaar la sëñ Modou Maxtaar it amul kurul sëñ Seexu Balla ndax li mu am ci sëñ Touba lépp sëriñ moo tax mu ndax sëñ Touba li ci tax a jariñu mooy baay waaye ndey du ci tax a jariñu ndax dafa mel ni barke bi daa topp baay kon loolu leer na nañ ndax lu ci waaye am rek loolu moo la ko may kon jëm sëñ Modou Maxtaar jëm sëñ Seexu Balla moo tax mu am lemam mm-hmm. euh, mbooloo mi ko topp it e, jëmmi sëñ tubaa ji nga xam ni li nekk ci sëñ Cheikh Awa Balla sëñ Touba ko ci def moo waral mbooloo topp ko ndax ñëpp xam na ni sëñ Touba moo ko borom Daaru Moxti mi waajuru sëñ Cheikh Balla ñoo bokk sëriñ Maam Mor Anta Sali e, bi borom Daaru Moxti feeñee jamono it sëñ tubaa mooy ki njëkk ci moom la war moom lépp moo ko taxawee e, taxawu ko doyloo ko wóolu ko ba bi mu liggéey liggéey bi gën a mag. moy yoonu géej gi nga xam ni ginnaaw yàlla murid yi xettaliku yépp am texe gu leer aduna ak alaaxira ci bis boobu lan xettali ko muy xarajtu yow ma sabti ya samina asar li xidmatil muxtaari fi sanri safar te sëñ Moussa Ka leeral ni bu duggoon ak tukki boobu wala fi yëpp nasaraan yi te kon billaahi ñëpp dem ni niiraan bi mi dem borom daaru moxti yi moom la wóolu ba dénk ko njaboot gi moo ko jàngalit moo ko yar li war ci moom lépp moo ko def moom sëñ Touba borom daaru moxti mom nak moy wajuru serigne Cheikh Awa Balla serigne Cheikh Awa yit it ko xamni euh borom daaru moxti ak serigne Tuubaa ñoko sekk ci walu yar ci walu njang bolem jikko yu makkaarim axlaaq yi mu amee woon mon moom Cheikh Awa Balla sëriñ Tuubaa ko def ci mom mu don ko am jom don ko teel am fit don ko am ngor don ko teel baye xel wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun dekk bi ñu teew tay di darul marnan, bi mu koy sànc fan at ñatt rek la néew na nag ca jamono boobu ñu ñaan sax ñu mën a sañ sax ab néeg mbokk yi ca jamono yooya 1933 euh, koo xam ni fanweeri at ak ñett nga am sañc ab dëkk gor ab dëkk nga xam ni bokkutuwoo sa dëkku maam euh, doo bokkutuwoo sa dëkkum nijaay waaye da dem ci àll boo xam ne ak ndand fay-fay la ni sëñ tubaa sañca tubaa rek muy àll boo xam ne ay bukkee ki gaynde fa nekkoon nga dàq leen ban dem nga gor dëkk ba sañc ko def ko dëkku jaamukaay yàlla Euh, bi nga wàccee liggéey ñu la ca digg dëkk ba nga xam ne kuy jaar ci dëkk bi xam ne fii ab jullit a fi nekkoon di jaamu yàlla nga xam ne jumaa jaa ngi nii ni fàng fi leen jullee ajuma tey kon loolu day tegtale ni euh, sëñ Cheikh Abala kun teel a def ci moom makkaarimu axlaaqa te loolu doon am solo ndax yonent bi ko yàlla di tàgg jikko ju rafet rek la ko tàggee way naka laa xuluqin aziim loolu feeñ ne sëñ Cheikh Abala sëriñ Modou Maxtaar mii it nga xam ni euh, sëñ Cheikh Abala mooy waajuram def ci moom lépp li nga wax doy na sëkk moo ko seedee loon ni ko ci ndawam ci zahir doo dem kaso doo sawara daal ni kum fiir da ngay perte loolu la suñu sawaaba la wax xam na ni du fiir kenn ndax sëñ Modou Maxtaar macha allah waaye ñoom nit yàlla ñu noon rek la ñuy wax euh, ñu teel koo garanti ci zahir teel ko garante ci baatin ndax doo dem kaso mooy garanti zahir doo dem kas doo sawara mooy garanti baatin sëñ Modou Maxtaar muy ku waroom jikko ju rafet doon yër yërmande doon ku baax doon ku tabe doon ku bëgg sëñ Touba jeex tàkk sëriñ bi nii ko taal bi yëpp defe njabootam gépp dañoo jëloon seen bopp jox ko jënde woon seenu njureel ak taalibe sëñ Modou Maxtaar mi it noonu la jënde ak njureelam si sëñ Cheikh Obal ak taalibe bi mu demee ba noppee gis waajuram it 1976 nga xam mooy bis bi ñuy fàttaliku laa ne dan na magam ju baax ji alxaaji maam Thierno jël léppam jébal ko nga xam ni jëmmi waajuram la koy xoolee moom sëñ Cheikh Obal la lépp lu mu nanguloon sëñ Cheikh Obal nangul na ko maam Thierno lépp lu maam Thierno di digle moo cay jiitu te lépp lu maam Thierno tere kenn du ca gis sëñ Cheikh Obal la te lépp it moo ci man mooy jëwriñam it loolu maam Thierno seedal na ko kon jëmmi Serigne Mourou maxtaar noonu la doon Serigne Cheikh Abdalla doon ne ko noonu maamam borom Daaru Muxti Serigne Mourou Makhtar nag loolu moo waral mbooloo mii ñu jël suñu lépp jébal ko ñenn ñi seen i bàyyi ñoo ko jébal Serigne Mourou Makhtar ñenn ñoo ñoo dem ba jëmmi jamono ñu doyloo Serigne Mourou Makhtar seen bopp jox seen bopp Serigne Mourou Makhtar loolu moo waral nag bis bi heure bu accès euh, ñu koy waajal am at di dajale suñu addiya di dajale suñu jëmm di mobiliser suñu xel ak suñu xalaat ak suñu xam-xam bu ñu accès ci bis bi nag ñu maase ñun ñëpp jóge ca dëkk bu tedd bee di Touba almaarus muy dëkk bu tedd bu barkeel àndante ni nu ko sëñ Wuru Maxtaar diglee woon mbooloo bi nga xam ne moo nekk garasu Daarul Moxti te muy sëñ Mor ngay jiite ko ak daayira bi nekk Saam yëpp ñu bàyyi ñu booloo nekk benn àndante e, def benn convoi joge Touba tabbi si ci dëkk bi te bi ni tabbi si képp ko ni gis dana xam ni Serigne Modou Makhtar Serigne Touba sédd na ko waaye borom daar moo sédd na ko Serigne Cheikh Obal sédd na ko bi ñëwee it ñu teew ci kanamam jébbal ko sunub liggéey mu xool nu bëti yërmandeem yooyu seereel nu ni ëllëg daa bëgg ñun ñëpp bu ndekkee ñu dekki bokk ci njaboot suñu Seex Awa Balla waaye ànd ak moom tàbbi àjjana loolu mbokk yi dal na am xel kon loolu mooy sababu su teew mbooloo la daal moo xam ni euh, ndigalu sëriñ bi rek la ñu diglu doon ñu am pësteef doon ñu bëgg sëriñ bi doon ñoo xam ne yitte sëriñ bi moom maanaam heure bu ñu ko déggee ca sens rek day daaju faju te loolu mooy ak taalibe di ñun daal li ñu dox mooy sart yi Sëriñ Tuubaa waxoon daal ñu am murit ñett saadixin laxumoo bi xidmatin aw bi aw hadiyat mboole mboole mi fi teew danoo bëgg sëriñ ba jeex tàkk ñaareel mooy heure bu sëñ bi wooteeb liggéey dañ cay dem ba jeex tàkk ñetteel mooy lépp lu yor dañ koy jëbal sëriñ bi sëñ Mourou Maxtaar xam nga jullit li ko war mooy ragal yàlla ndax suñ borom daa wax ci alxuraan ni yaa ayyuhal lazina aamanu taqullaha mastata'tum mooy mooy niveau bu njëkk bi mooy yéen jullit yi na ngeen ragal yàlla seen kem kàttan waaye dellusiwaat ci beneen niveau bi gën a kawe لأن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لأن آه، آه، ني غنا كاوي نيو موي نيغا خامني وراغال يالا دغ دغ راغال يالا آه، دوي ني سك سي خاو بالا تور بيم ساخو وون مو يا خفار سنو تور واو نيب خامنا ني تور يالا يي كي لا بوك تا شيخ محمد الفارل مباكي دانا واخني تور عرب و سن شيخ بالا وو كوكو ما دو ديم سوارا مو يا خفار سنو تا سن شيخ بالا موم لا دان ويرد moom la daan de ba ay tuñam di teppiku di sotti deret te ñëpp xam na du bàkkaar bu mu def waaye nitu yàlla fu mu toll tey digganteem ak boroomam ak fi muy toll suba fa nam toll woon démb ak nam jàppe woon yàlla démb ji ak yàlla tay ji loola bàkkaar lay doon ci moom moo tax alxuraan di wax ni euh, euh, euh, alxuraan di wax ni maanaam xasanatul abraar sayiatul muqarrabuun daa wax ni rafet rafet nit ñu baax ñi ñaaw téef la ci ñi jege yàlla xam nga sëñ Tuubaa bu demee bay bind xasiida mi maa ngi maa ngi jéggul yàlla sëñ Tuubaa mu sa def bàkkaar waaye nitu yàlla ay jëfam mooy nekk bàkkaar ci moom moo tax suñu borom wax lool ci alxuraan sëriñ Cheikh Awa Balla foofu la toll woon ci digganteem ak boromam te ñëpp xam na ni doomu aadama li ni bari bari ñi ngi gën a kawantee ci ak ragal yàlla ndax suñu borom daa wax ni dama leen a bind def leen ngeen nekk ay askan nekk ay xeet yu wuute yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa وجعلناكم صحبا وقبائل لتعارفوا لولا واخ دما لين بيني داف لين نك اي خيدو ووتو واي ليما تي جوبلو موي دما بغ نين خامنت رك داني كي غينا راغال يالا تي يين نك موي كي غن كون ناتوكاي سون بوروم موي كي غينا ان اكرمكم عند الله اتقاكم سيرن شيخو بالا تي نيو بوبا لا نيكون ndax kan ko ne xamna ni ay bayam la jamono tel waye mag ni ko ay at la te képp comme jamonoon teel jëfal na la moo xam nga yëg ko wala nga ñàkk koo yëg ndax 1922 bi mu amee ñaar fukki at ak ñaar la Cheikh Obali jënd oto oto bi mu jënd da koo jënd kaas ca jamono booba tubaab bi mu ko doon jëndeel daani ko xanaa borom daa sëñ Tuubaa mooy sa baay mu ni ko moomu jur waay juruma xàqan mu ni ko ndax Cheikh Anta mooy sa baay mu ni ko moomu jur waay juruma xàqan mu ni ko an mooy sa baay mu ko borom daaru motti tubaab ba ci boppam daal di ko ku jub ka nga xam ne tubaab bi seere na jubug maam Thierno ca ñaar fukki ak ñaar ca jamono booba nga xam ne booba am pënu képp yombut 1922 bàyyi leen ci xel 1900 la gane jamono ñaar fukki at ak ñaar 1922 la jënd oto juróomi junni la see xaw baal oto bi njëkk a moom la ko jënde oto boobu ci boppam yóbbul na ko sëñ tubaa njëreem sëñ tubaa war na ko wër kër gu mag gi ba mu daj mu dellu siwaat tey boo doon wër ca jamono booba ku sëñ tubaa dugg ab otoom ku du see xaw baal du bari waaye loolu la ko may loola mooy ragal yàlla ndax yàlla daa wax ni boo ma ragalee dama lay génn ci jafe-jafe wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra képp ku ragal yàlla benn jafe-jafe doo ca tàbbi fi mu ne xanaa xamu leen ne jafe-jafe yéen am yëpp ñàkk ragal yàlla moon ko yóbbee yàlla nee na bu ngeen ragalee yàlla fi ngeen toog ngeen di toog ma fekk leen fa ak wërsëg wa man yattaqillaaha yaj'al lahu maxrajan wa yarsuqu min haysu laa yahtasibu wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu inna llaaha baalighun amrihi sun borom nee na ku ragal yàlla man yàlla dama lay wërsëgal ci lu dul ngay sol saw daal di ko wëri lu dul ngay sol fi nga toog ngay toog yàlla di la fa fekk ak wërsëg tay jafe-jafe yo nek yàlla dala ci genne bép bépp jafe-jafe bo nek yàlla dala ci génne Cheikh Awa Balla fofu la tollu won doyna sëkk kun fa yëkkoon mbok yi kun fa yombu ta am liko ko sen Cheikh Awa Balla mooy ragal yàlla Cheikh Mouhamadul Faaral moo sédel Serigne Cheikh Awa Balla ni sëñ fallu nim amé won woon lu mu wax yàlla ni ko def ko yàlla def ko noonu Cheikh Awa Balla amee woon waaye Serigne Cheikh Awa Balla war na serigne Touba ci serigne fallu di nek serigne Touba ba kun fa yëkkoon musko mus ngir jëmi seigne Fallou mi ngi jamono tel waye ne ni seigne Fallou amee woon kun faykoon ba bu dee yàlla dama soxlam ndox ndox ndox mi wàcc tey jii bu ne yàlla bu jant bi fenk jant bi du fenk bu ne yàlla bu jant bi so jant bi du so non la seigne Cheikh Abal amee woon te mbokk yi kun faykoon moy secret sun borom inama amruhu isa arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun legi lola la ko may Cheikh Abal moy ragal yàlla legi demi Cheikh Abal da na wax ni man Cheikh Abal fi ma teg sama pilian kenn rombu guma fi dem kaw xooma ajana nag daa am aw teggem déet nee na fi mu nekk moom niveau bi mu ne benn jaamu yàlla ku tiimagul seexaw bàll am nee na wóoru ko nag ndax àjjana amul teggem déet waaye seexaw bàll fi mu tegu piliyaanam kenn romb ko bu jëm kaw léegi daraja yooyu nit mënu ko am mukk ci lekk ba suur naan ba nelaw tëdd nelaw lekk ba suur naan ba mandi tëdd nelaw déedéet da ngay jaamu yàlla ba jeex tàkk ci yàlla dem ba sa yëngu sag daal sa lépp di suñu borom subhanahu wa taala mooy ni yàlla tàggewu nit yàlla ñi نمكو واخي وون تي نيكو سنتو واخي وون دا دي واخني نفسي وديني سما اهلي ولا ولق ومسكني لك ودي حتن ابا دا واخني سنتو با دا واخني سما بكان سما لا سما نجابوت لب جيبال نكو يالا سي كي بروم لول لامبو رك سنتو با غاي دك بو لامبي يالا سنتو با غاي دك بو لامبي سنتو با يالا غاي دك شاو والا نيو با مو نيكون لا كوكو مايور موي راغال يالا كون راغال يالا موي يوبو نيتي قد قتلي بالله مخفي نايل المقامات الحلة بتي مكوي كون سنجم المختار سعوا بالار لم عمون دارجي جم عمون ورسك بم عمون بايرا بم عمون بولو بم عمون توفيق جم عمون ديكر جم برومم taqwallah rek moo ko may. Euh, sëriñ Cheikh Awa Balla looloo moom wax dëgg yàlla euh, kenn mënut faa teg leen li a wax daal mooy ki nga ni mooy sëriñ Cheikh Awa Balla li moom lépp xam ngeen ni mi ngi ko jëlee ci ki nga xamante ni mooy way juróom wa maam Thierno Ibrahima Faty Mbacké te ni maam Thierno muy lem yi am lépp mi ngi ko jëlee ci ki nga xam ni mooy Cheikh mooy Cheikhul Khadim waa juróom wa Cheikhul Khadim li maam mu jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mel na ni eh, amam yooyu amam la yoo xam ni du dog mukk bam borom mu muti am ko suñ Cheikh Obal am ko taraange jooju day dox di wéy di wéy ba El Hadj Moussama waaye du dag mu. Ah, di wax di waxaat daanaka ñàkkum xel la. kon fu ngeen tàmbalee woon ci yonent bi jaar ci Serigne Touba jaar ci maam Thierno daanaka yéen jaaral jaaral ngeen mu fa. kon dañuy rafetlu jataay bi rek. la leen waxoon laataa ngeen a ñëw. mooy ku ne xam na ni jataay bi ak màgg la ci jataay yéen fi daan tewe loolu nag mbirum sëñ Touba ni demee. waaw ndax wax dëgg yàlla ah rajo ak télévision daawuñu jël fii. wax dëgg yàlla nii nga xamante ni sëñ Moussa Xuma magi xale yii di président daayira bi ñëw na fi ngir mbégteeg sunu doxin. Hmm. ndax li muy dégg ci sunu doxin xam na ni ku jabootoo loolu war nga caa sagu nag. Hmm. ba fii la teew yàgg ak nun lool te loolu daawul am kon ba tey loolu ci màgg la. Ah, sëñ Habib Fall mii état la jóge yàlla def màggal gi jub laaj na fi fédération ah teewaat nun ci màggal gi te bàyyi woon na fi ndaw yu mati ndaw sëñ Baara Dieng mii di moom it kan ngam goo xamante ni ku ne xam na ni état li daan dem ba ñëw di jëwriñ joo xam ni ma nga nekk fee ca Gede waaye tubaarkalla yàlla may na ko ak teewaayam tey. ah tubarkalla sëñ eh, eh, Alaaji Touba moom it ñamu àndal ca Daaru Xuddoos sëñ Soxna Ndey ak waa kër sëñ Mudu Wañaan ñoom ñëpp teew nañu teewaay goo xam ni yaakaar naa ni moo gën a taaru teer teewaay gun fi daan teew eh, tubarkalla waa Nuuta Jamo ñoom itam ñu ngi nii sëñ Cheikh Dieng docteur ñoom ñëpp fekk si nañu ci jataay bi ak sëñ Mbay ma ti Baye Fall Kebe maanaam docteur ñoom ñëpp teew nañu fi tubarkalla ah kon ñoo ngi sant bu baax borom télé bi di ko ñaanal ci dara ji suñu Cheikh Awa Balla téléem bi yàlla na yokk te mu am ci ndam. al muridee murid moom murid lu ko tudd rek day dox. Mm-hmm. dama wax ni màggal gi saa yu nekk dañu koy euh, mel ni dañu koy xoole ci jëmmi liir ndax liir moom mbubb mu sol ren bu déwénee da nga boo ko ca danga da nga koy xotti wante du ko jariñoo kon màggal gi màgg na. ah noongi sant dëkkandoo yi di sant toggkat yi di sant jigéen ñi nga xamante ni ñoo ànd ak ñoom di sant itam chauffeur si nga xam ne ñooy mobiliser jox nu seen oto te ci laaj dara di sant ñit ñi nga xamante ni nii ah ñooy waa kër gi nga xam ne ñoom it ñoo yaatal ca ah, gan ci kanam nga koy tàmbalee dalal ca lépp la boo gisee daana dal ci dëkk bi waaye ba ñu fi moosee ba tey teggi wunu ah dañu fi déggul lenn lu nu naqari wala ñu gis ko noongi sant jiili maxtaar mi nga xam ni mooy jëwriñu daayira bi fii ci nun la dal bu dul woon dana ko woo kilifa yi woo ko fii ndax nag fii nag ay kilifa am rek a fi ne ah te xam nga moom day wax ni du moom sëriñ ab taalu bi laa ba tax na mu nangu nangul taalu bi yéen wante nag nangul nag ahlu mbàkke ba tax na fii lañ ko wooye moo tax fekkewul jataay bi wante noo koy sant ndax aayul gaaf sëñ si di ma aayoo gaaf Moodu Maxtaar xumma noo ngi Moodu Maxtaar Jóob noo ngi lay sant ndax wax dëgg yàlla gone nga wante yaatal nga soxaroo te yoon wi loolu la laaj képp ko am xam-xam wala nga gisee am xel muy boroom tele ba muy boroom màggal yi muy boroom cër yi la nga am na nga ci laabiire ndax métier sax sooy jàngal nit ki di ko koñe yàlla la mu ko waral a xamal dana ko xamal te bu génn su wee fu weesoo lu foofa di ko fàttaliku. Mhm. Sëriñ Tuubaa mii borom yoon wi it yaakaar naa bu xataloon kon mbay ak mbuub ak faal jóob kenn ku ci nekk duñu la summil ay dal kon loolu war nañu cee roye bu baax yaatal xol yi tubaar tubaarkal la lii nag doy na ak cant doy na soññe it ndax li fi boroom xam-xam yi wax ku ko xamul woon it war nga cee jàpp xam ni kon yow li sëñ Abdou Khadir wax ni jàmbaar amul ku nu dimbalee am dimbale nan nu ndax koo xam ni sëriñ tuubaay boroom yoon wi maam Thierno la doyloo woon ci lu mu doyloowul kenn mu defal ko lu ko kenn defut mu sedd ko nu bokk ci cëdd bu cër booba cër booba ñu tànnaat ci ku mel ni sëñ Cheikh Awa Balla nga xam ni sëñ Touba ci boppam moo ni ku yàlla teral la ñu wëlbatikuwaat ci njabootug sëñ Cheikh Awa Balla gi ñu féete koo xam ni moom dong ci yoon mu murit laa dégg ñu ni doo dem kaf sa kaso doo dem sawara déggu séddoo nu noo dimbale kon lu nu dox rek doyut yàlla nañ ko yàgg a te kattan gi dolli ko bu baax ci daraje khadimu rasul kon xamna rek nga motali liggey bi te nu ñaan ah borom nak mën ta wax ci borom xam-xam wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Baye jega kon xamna rek li nga wax rek ñu ñaan. amin waay jërëjëf Diop amin amin ya rabbal alamin amin amin amin amin amin amin All uh, right.